deuxième combat de la soirée diggante Ablaye Diop ak Babacar Baldé jàppante nañ songoo nañ mi ngi dóor dóor dóor dóor dóor mu daanu dina ci am ñaari ponkal lañ daanu na daanu na daan na ko daan na ko Ablaye Diop daan na ko daan na ko daan na ko Ablaye Diop daan na ko Ablaye Diop daan na ko daan na Babacar Balde Ablaye Diop daan na Babacar Balde jël bu gaaw la ko daan